clé de la république niñ leen ko doon waxee sànq président Macky Sall moo fay jiite ab ndaje ñu jagleel ko coronavirus muy jàngoro boobee nga xam ne li mu lim ci li mu faat ci euh, doomi aadama takku na Alhassane Ba maa ngi lay nuyu. soxna waaw ndaje bi jeex na lan lañ ci mën a jàpp ci ay euh, dogal yu tukkee foofule wala ay leeral sax. Institut Pasteur ay analyse xool ci waxtu yi di ñëw nag daañu wax dagam am na feebar bi ñuy wax coronavirus am déet wante li ci mën ci am rek nee na na xel yi dal bu askan wi paniqué nañu jàpp ni ñun ñëpp ñoo war a booloo li nga xamante ni mooy coronavirus bi ñu xeex ko ba euh, li nga xamante ni benn réew mënu cee mucc ñun ñu jël motuwaay yi ci war motuwaay yooyu sax am na yu bëri yoo xamante ni tey ji euh, service yi nga xam ne teewoon nañ ci muy conseil présidentiel soxna naata nga xam ne bànqaas yu bëri teew ay pharmacie nationale approvisionnement euh, ak ministère intérieur ñëpp ku ci ne jël na kàddu wax li nga xamante ni mooy euh, wareef euh, ak taxawaay bi nga xam ne buñ ko defee rek bu mu fekkente ni sax feebar bi dugg nañ dugg na ci daañ ko mën a xeex na mu waree kon ci loolu soxna naata wax na ni cas boobu nag ci waxtu bi comme ni ma ko wax Euh, ba léegi nag euh, dispositif yooyu mi ngi fi wante itam am na budget boo xam ne taxawal nañ ko sax euh, muy jëm ci plan bi nga xam ne mooy plan bu ñu taxawal ngir xeex maanaam anti riposte ci feex bo ci feebar boobu di coronavirus ci loolu nag budget bu toll ci benn milliard wala boog ëpp na ko sax taxawal nañ ko wante itam lu mel ni suñu hôpitaux yi ci mel ni Fann nga xamante ni am na pare ñu ngi leen di préparé ci mel ni Dantec ci mel ni principal ak fee hôpital euh, général bu euh, Grand Yoff bi Idrissa Pouy yooyu yëpp pare nañu euh, ngir li nga xamante ni mooy li war lu jëm ci wàllum jumtukaay soxna naata ngir ñu fexe ba feebar yooyu ñu xeex lan amoon na itam ñaari malade yi nga xam ne isolé woon nañ leen professeur Seydi bu hôpital Fann ñu ngi xam ne ni sax ñooñu jamono ji ñu ngi bon maanaam commence a ñu ngi commencé di wër ndànk-ndànk kon soxna naata jàppale ne xabaar bi loolu na kooku nag ñuy wax ne moom ñu ngi amee feebar boobu moom nationalité étrangère la maanaam ci réew la dëkk mu ngi def euh, saytu analyse yi uh-huh. Ba euh, laaj bu mujj rek ndax mën nañoo am ay leeral ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo demoon ci salon international de l'agriculture ca Paris ndax foofu am na benn maire bu nekk foofu bu fa nekkoon bu am jàngoro bi ndax am na ay xibaar yu ñu joxe ci délégation sénégalaise bi demoon foofu justement euh, soxna naa ci loolu sax xam nga euh, ci réseaux sociaux yi boo xoolee sax ñu ngi naan ñu ko jóg bàyyeekoo ñu ngi leen mettre en quarantaine ak lépp wante li ci mën ci am rek euh, ministre jëwriñ bi yor wàllu wér-gu-yaram xam ne na ni lépp li nga xamante ni mooy lu jëm ci voyage ñu ñi nga xam ne dañu jógee bi ci réew njëkk yi faaw ñu saytu leen saytu bi war nekkul ni ñoom daanaka dañu àndaale jàngoro beeg yéet déet wante li ci jamono ji toll fi ñu toll ci jamono ji moo moo ko laaj moo waral Euh, faaw ñu def saytu yu war mbir xool ndagam àndaale nañu jàngoro jooju wala boog àndaale wuñ ko ci loolu sax euh, soxna naag président de la république ci fàttali nee na euh, ci di ko dalee tey lépp li nga xamante ni tukki la bàyyee ko fii dem biti réew mu ñeel gouvernement bi ñeewal état Sénégal daañ ko wàññi ni mu waree bàyyi nag ñi nga xamante ni mooy suñu représentant mooy ñi nekk ci biti réew mooy suñu diplomatie plutôt ambassade yeeg consulat yi ñu def liggéey bi nga xamante ni bu fekkente ni waroon na état déplacé ñoom ñu bàyyi leen ñu def ko ñu moytandiku li nga mooy déplacement va et jërëjëf Alhassane Ba nekkoon en direct ca palais de la république mu ngook mbokk yi ñoo ko déggandoo kon xibaar bi mooy benn nit boo xam ne dañuy njort ni dafa am jàngoroy coronavirus waxuñu ne da koo am waaye dañu koy njortu ba tax nañu yebal ko ci institut Pasteur di def ay analyse lu ci mënti am rek ci yeneen jotaayu xibaar incha allah dinañ leen ko leeral mbokk yi fii la ñuy yam di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci déglu bi 19h30 incha allah yeneen xibaar fii boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.